dégg nga de ci weeru muharram ca xatam juróom-ñaar ca gàddaay ga yónni leen ci ay buur yu wuutee ñoom juróom-benn yëpp bañ wàccee ca réew ya ba ñu dugg ca euh, maanaam frontière ba rek lañ dégg luxaab waa réew ma arsala yónni na albadru weer mooy seyduna muhammad xamran amar la yónni indi na jaas yi gën ko jël buuru na jaas yi mooy buuru Éthiopie ba dégg de buuru na jaas boobu mooy ak xamatu wala wa ñeel na ko taaxatun topp bi ci moom wasi daaw ak gindeeku moom gëmoon na yonent bi ba mujj sa ndeysaan moom yonent bi ba dafa naroon a bàyyi nguuram ga ñëw fekk si yonent bi ca Madina yonent bi nag ne ko comme gëm nga diine rek euh, loo ma sori sori jege nga ma waaye boo gëmut loo ma jege jege sori nga ma mm-hmm. léegi nag mën ngaa ko toppatoo nga toppatoo sa nguur dimbali sa population bi fa la nekk ba génn àdduna yonent dem ci àll ba def ñeenti sàppe mu ne najaasi yow laay jiite te xoolal Éthiopie ak Madina bu koy avion ñaari waxtu ndax diggante Jidda ak Madina rek ak ak ak Éthiopie ñaari waxtu la koy avion di naaw Mali nag ci la jëlee ne moom rek moo ko jago kenn xamul droit jullee ko fàddu kenn sa mbokk dafa gaañu ñi Arabie Saoudite nga taxaw fii di ko jullee imaamu saafi ne ah kay comme yonent bi def na ko rek te moom lañ ñu royloo mën nañ koo def laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana dégg de ñii ne dañ ko ko waxee ba mu jàkkaarloog moom moo tax mu mën koo jullee yàlla rek ca xam daal waaye jullee na ko wa xiraqla xiraqla xarada delloo na lettre ba moom moom laa la wax ba tey dexyetul kala bi euh, dégg nga dexyetu dexyetu la delloo moom lañ yónni woon wa xiraqlu xiraqla maanaam xadrada delloo na dexyeta Kisra Kisra da delloo na Abdullahi moom soqaaw ku texe bi la fa ndaxa ñaan na Moustapha kuñ tànn ci àll yi waral ko li tam si kitaab yi ngir mënati gi mënati lettre yonent bi waaye fa musiqa mën a teef dafa jël lettre yonent bi xamut ci mu xotti ko mënate ko yonent bi ne yàlla na yàlla mënate seen nguur kon gis nga waxagum naa la ñett Muhammad Omar mooy ibnu Umayata ab damariyu mu saxaabi yu la yu la najaasi yu la dégg nga mm-hmm. maanaam moom la ñu yónni woon mm-hmm. ca buuru Éthiopie ba mm-hmm. turam dëgg mooy doon asxamatu doon kon wax naa la ko dégg nga mu rafetal lislaamam nga lool baax lool am dee wax naa la ko yonent bi moo ko kii rek dem taxaw fale jullee ko dégg nga mm, uh, Hiraql moo doon maliku ruum xilifoon ko moom tabaarakallaahu bañ koy yónnee leesar ba moom dàq nangu hut ci bañ ci muwaahib di annahu yuqaalu dañ ko daan wax qaysar euh, waxama bil islam awalan suma lam tuwaafiqu ruum bëggoon naa jébbalu sax waaye waa ruum yi d'accorduñ mooy ña mu jiite ñu ne ko daal mënoo fee nekk di di islam di ñu jiite mu ragal leen ca nguuram ga nag mu ngëbu téye boppam dexyatu mooy dexyatul kala bi mi nga xam ne bu daan jibril di wàcc da daan yore melokaanam mu ko rafetoon la moom tamit keroog ba muy tuub sax yonantu xaw naa téye loxoom ci moom euh, dafa ñëw ne day tuub yonantu bi ne ko boo tuubee yàlla jégal sa bàkkaare mu ne ko bala nga maa wax loola wax ma li ma wax la ma def loo def mu ne ko rey naa ñeent fukki doom yu jigéen ku judd bu ñu jigéen la rek ma rey wa idaa bushira ahaduhum bil unsaa walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadiim yonantu bi xaw a xaw jibril ñëwaat ne ko nag ne ko na wax asadu an laa ilaaha illallaah bu ko waxee yàlla jégal ko lépp wax ko nag lay si la yonent bi ne al islaamu yajubu maa qablahu lislaam day màbb la ko jiite woon lépp ci mbon moom deexetul kale bi moom nag jibril bu daan ñëwal yonent bi li gën a bëri mbubam la daan sol melokaanam ku rafetoon la moom lañ la yónni woon nag ci xiraq la ñi nga xam ne mooy buuru ruum ba dégg nga de abdullahi nag mooy abdullahi ibnu xurafata ibnu qaysin ibnu addi assahmiyu moom mooy euh, dégg nga moo solo xadis bële nga jàngoon yonantu bi ne euh, yonantu bi tere na lekk yàpp tabaski gannaaw ñetti fan dañoo bëgg yàpp tabaski nag jërul ngay denc na sa filistere rek mu jëm fan yu dul jeexati saraxe ci kay mayee ci nag li si nga lekk ko ci diiram ñetti fan yi waaye mën naa am booba naa am filistere xewagu toon yàlla rek a xam dégg nga dégg nga ñu ne xadis boobu xadis bu wér a wér la mhm. moom moo ko solo euh, mu ngoog loo teg. wali naxwil muqawqis. wali naxwil muqawqis. bu la neexee ngay wax ne. wa am daa wëy na. xaatiban xaatib. li naxwi muqawqis jëm ci wàllu muqawqis. almaliki kay buur. su ma aadawu topp dellul dikkal na ko. intisaaw ak ak ak ngëmu ak musal. moom nag gëmut. waaye tamit weddiwut. mooy muqawqis mooy buur ba nekkoon Égypte. ba ko lettre bi ñëwalee muy xaatib ibnu abi baltaxata mm-hmm. da nga jàngoon nga mbiram ca mbiram euh, kële moo defaroon lettre ba muy jëm fële ca màkka mm-hmm. dégg nga moo yónnee woon lettre ba ci waa màkka di leen solo na yonent bi mi bëgg dox ñëw ci yéen euh, bu gudd euh, dégg moom moom moom la yonent bi yónnee woon ca buuru Égypte ñu ko daan tuddee Muqawqis mm-hmm. moom nag ndeysaanam mu yëkkati ay hadiye kado yu bari may ko yonantu bi mayoon na ko moo ko may Maariyatu Xibtiini mu yaayu Ibrahim moo ko may mbokkam ma di Siiriin yonantu may ko benn sahabi bu ñu tuddee Xasaan ibnu Saabit moo jur euh, doomi mooy yaayi eh, doo Abdu Abdurahmaan may na ko Baxla la buñ naan tuddee dul dul waaye tamit gis nga ko ak beneen la boo xam ne dañ ko daan tuddee Maabuur mayoon na ko am mbaam may na ko tamit benn ndab bu daal yonantu bi def mayoon na ko may ko benn médecin yonent bi ne ko na ñibbi ñun duñ feebar ndax nit lañ yoo xam ne bala ñoo lekk day fekk ñu xiif lool te bu ñuy lekk bala ñoo regg fekk ñu jug te lii ku koy def doo feebar te feebar dana ko def parce que feebar yi yëpp ñu ngi ko jëlee suñu kàmbu biir yi rek moo ñu yóbboo feebar yi waaye ku yor sa biir da xamoo nooy lekkee xamoo fooy lekkee lu la neex nga lekk soo am nga feebar surtout ji jamono bi lekk loo xamul xewee ba léegi ci la feebar loo xamul xew li muy lekk xamuñ ci dara dajale ko rek ay kii yu bari bëgg a def hmm, dégg nga defar ndabbe ni kuy mëbale ab saal lépp ñu ko jox la ngay lekk rek hmm. foog nga feebar loo xamut kenn mënu ci dara dégg nga moo tax kon wal hadaaya hadiya ya min bokk na ca bataawun ay bagaas wa aamun ak jéebéer wa ximaarun ak mbaam wa baxlatun ak baxla sëhbaawu bu xëcc mooy na ko yonent bi hmm. wa ilaa xaaris jëm na ci xaaris buur la mm. dégg nga al amiru kay buur mm. su jaaxoon su jaaxo ibnu wahbu mm. dégg nga de su jaax ibnu wahbu ibnu rabiaa ibnu suhaybu ibnu malik al asdiyu bokk ci bani qusaa muy xalifu bani abdu samsin bokk ci nga xamee ne dañoo gàddaayoon jëmoon éthiopie ca njëlbeen ga moom la yonent bi yónni woon ci xaaris ibnu abi shamir alxasaani yu moo doon buuru xasaan dégg nga de ak jiblatu ibnu ayham dégg nga mu yónni ko ca balxaa dégg nga xaaris nag moom da nangu hut jébbalu hut ngi muslu yàlla ci loolu waaye jëblatu jëblatu moom mu na maanaam dugg na ci lislaam gannaaw si moom murtataat ci xilaafa ak Omar ibnul Xattaab li sababu nag murtatam comme ni ko ahlu siira nettalee dañoo wax ne dégg nga waa ana fazariyan benn waaye bu dëkk ci bani fazaar watia ala izaarihi fi tawaaf faxluhu falatamahu jibla fa dégg nga fa taada alayhi fasaariyu fa maanaam dafa bëgg wax maanaam benn fasaariyu dafa ko laaloon ci sér ci jamonoy ba ñuy wër kaaba ga ci at gi moom tamit nag comme buur la mu yëg boppam pes ko te xam nga kaaba gi xàmmeewut buur ak badro dañ ko pesee nag waa ji fayu mu ni ko xanaa xamoo ne man buur laa ñu ne ko man yooyu yëpp sama yoon nekku ci ñun ñu ci lislaam lislaam diine xemale la ñëpp a war a xem ah ñëpp a xem rek ci lépp ci la nag mer moom yëg boppam daal di dem saam ñibbi am demee mu soppeeku nasaraan dafa bëgg moom bëgg a yëg boppam rek waaw kon loolu tamit baaxut loo teg su ma xas saxoo xas saxoo nga tegal waaw xas saxoo ñaax na ko su jaaxam xastakoo ñaax na ko waaye su ma kaan topp nekk na daal mi ne cuma ibaawu bañ daal dem na waaye d'accordut wax na wax ba bëgg a dee waaye d'accordut mm-hmm. loo teg wa salita salita ak góor la moom la yonent bi yónni woon li xawsata mm-hmm. ci ba ba ci buuru xawsa mm-hmm. dégg nga de moom tamit moom la yonent bi yónni woon moo doon moo doon buuru yaman salit bi ñu ko ñëwalee lettre ab yonent bi mu ne haa sa yonent bi de li muy xoote ak rafet man de maay saaxiru sama waa sama nit ñi maay seen waykat maay ki leen di joxeel discours dégg nga waaye waaye defal defal ma lenn ci mbir sa gannaaw ma topp la léegi nag euh, salit wa wa ajaasa salit bi jaayisatin xasana mu jox na ko neexal yu rëy rëy yu bëree bëri dégg nga de euh, li xaw wa sumaamun dégg nga xalat wu tàbbal na ko xunafaaw saxaba ya fi milati ca yoon xam nga bu jig mooy moom mu gën a tuub tuub na daal dugg na ci lislaam mm-hmm. waaw dégg nga dugal nañ ko ci lislaam mm-hmm. asaruhu jar-jar nañ ko nitam ña fan xaada xommatu baax da samaan gannaaw diir yaxabu dana may laahu yàlla diina woo dinañu ma a saal ku ko soob ko moom kilifa gi mu nekk ci nitam ñi nag bañ ko daysaan ba mu tuubee mm-hmm. te mooy sumaam eh, ibnu asal radiyallahu anhu alxanafi yamaani Uh, jëlee nañ ci sayul Buxaari yi mu ne Sumaama dafa génnoon di xaj am ñàngal ci jullit ñi jàpp ko léegi nag ñu indi ko jàpp ko jar xeew ko ca kii bunt ca ca ca kii jàkk ja euh, keno ya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwal ko ne waaw yaa Sumaama fa qaala ne nekk fi yow mu ne ko ah, de moo nekk ci man su fekkee euh, nang nga maa rey ma dee dee nga de loo ma loo ma teg rek ma tegoo ko boo ma delloo tamit ba tey baax na ndeysaanam ci la neexoon mu nekk fa ñu ngi indil ko soow muy naan ci yooyu mu jigéen nag ndeysaan mu jébbalu waaw eh, eh, dégg nga mu génn jébbalu nag ndeysaanam man àdd xalaat ko fi métti wa sumaam dégg nga koo teg. kee nag moom ba mu jébaloo nitam ñi dañ ko jàpp kii dañ ko jàpp nañ ko moom lañ jàppoon jaam mu xamatu gannaaw moom laa lay wax noonu mooy sumaam moom laa lay wax nettali xisaam bi noonu nga xam ne dañ ko jàppoon jaam ci yoon wi ci sariyatu boobu ñoo ko jàpp ñoo ñu xewoon ko ci jàkkaay yonantu ba hmm. dégg nga de wa jarir jarir li eh, dégg nga eh, eh, jarir li di kulaal wa amrun zi amrin xam nga maanaam buur yi nga xam ne dañoo nekkoon yaman dañ leen daan dàkkantalee zi doo daan dégg ñu naan sayfu ibn zi yasan waaw dégg ñu naan zi si yasan zil kula si nawaas ak ñu mel ni ñu dul ñoom moo tax nga dégg mën a jëri euh, li zil kalaa ñu mel na ko moo xam ne wax zil kalaa dégg nga de wax amrun ak xomar aslama jébbalu na jumlatan mboole seen fu ñoom soxdaaw ñu texe lañ comme tey buur yi nekk fële eh, eh, Algérie buur lañ leen di wax ah, Abdou Hassis bu tafliqa yu mel noonu ngay dégg waaw comme kenn ku ne ak seen i aada dégg nga wasaara dox na abdun xamrun xamar li abdin dégg nga jëm ci abdu dégg nga aljul aljul ni diyu buur la mm-hmm. wa jayfar ak jayfar léegi nag aslama jébbal nañ jumlatan mboole seen mu neex ma baax na sawaabu sax ga mm-hmm. kon xamar la yonent bi yónni woon ci ñaari buur yooyu jay far ak Abdu mm-hmm. ba ñu demee ñoom ñaar ñu jébbalu mm-hmm. wasta daa gindeeku na bi naxray bi baxray ni ca baxray ni ci xatar xaw mu nit bi taxaat ci yonent bi is ataahum ba leen dikkalee kitaabu leetara ba wala allaahu ak allaahu allaahu ibnul qadri bi la yonent bi yónni woon ba mu demee rek ñu jébbalu wali naxwil mu wali naxwil kazaab jëmoon na ca musaylimatul kazaab ngay wax ne xasaara dox na amrun homar li naxwi musaylimatil kazaab jëm ci musaylimatil kazaab waddaa xootina shirkatan ak bokkaale ne moom yonantu bee bokk nubuwa gi moo waxoon ne inna innal arda nisfuha li wa nisfuha laka maam xalifa ne wa zalika loolu iftiraaw ak duut la moom bi ko lettre mu ne ah yow yonantu maa ngi yow ñoo bokk suuf si genn wàll gi yaay seen yonantu geneen wàll gi maay seen yonantu yonantu bi yónnee ko lettre ne ko min muhammadin rasulillah ila musaylimatil kazaab inna al arda lillahi yurisuha man yashaa'u min ibaadihi wal aaqibatu lil muttaqiin ndeysaanam fa la nekk ba mujj Aboubacar xeex ak moom jigéen dañ koo rey ku ñu wax siiw mi nga xam ne moo reyoon xam sa moo ko mujj rey keroog bañ ko reyee sax saxaaba yu bëri dañoo kontaan root su jóot wakasa naka noonu farwatu farwatu moom tamit ataaw ka na ko ibnu saadin waxadaaya waxadiyam ya kaana nekk na min ha kaana bokk na min ha bokk ca xubaaw euh, bergen kii xabaaw kii li ngeen di wax kii xayma euh, xabaar yooyu ñuy def naar yi dégg nga musaylimatul kasaab mooy ko bon kooku nga xam ne doon jéem a topp alquran naan yaa daf daxu bintu daf daxay ni ilaama wa anti tunaqnaqiina alaaki fil maa wa asfalaki fi tiin wax ñu ñàkk fayda ji xam nga du wax dara naan alfiilu mal fiil wa ma adraka mal fiil lahu xursumun tawil tax na dégg nga fasta daa gindeeku na farwatu moom dugg do ci lislaam waaye waxat sala boobu nañ ko wa ilaa xaaris ngay wax ne wa yan ko dana jublu muhaajir muhaajir ilaa xaaris buur la wa tawala daddu na القريب wa xal li na xalliw kat daxaaw xoo na ko illahi mu jëm si mu jigi yono yóbbu ma xalliw mu dem sax fa di leen jàngal fa sawaa sax na ko fa fihim ca ñoom wan ni xam na baax na sawaawu sax ga ñii ñoo doon ndawi yonantu bi ci buur yi gis nga yonantu bi xamul morom xoolal ma jeexit rek lii mi ko def ca xatam juróom ñaareel ma ci leetar bu ne bu la bindee gannaaw ba mu defee mu am rasulullah dafa ne aslim taslim maanaam jébbalul nga bokk ñun jàmm ji xam ne diine ji diine jàmm la yonentu bi nag dafa am ñu ko daan reeloo ndeysaanam dafa am ñoo xam ne daal dañ ko bu toogaan dañ koy waxloo ba yonentu bi ree xam nga nit koo gis rek am na am na am na daal ku la mën a reeloo ba léegi am na ci paal yi ak ci kilifa yi yëpp rek wa Nuaymaan Nuaymaan yu di ko daan reeloo ba dër weer wax yi nan léeg-léeg bi suway biit yi ci waaju dee wax suway biit te daan jëflante ak suway biit léeg-léeg bu doxloo ko ba ko ci daal nettalil xisa ba xii na kaana ba xamee siraawu jënd ga Nuaymaan dafa mos a dem ci marché mook sumay biit ba mu demee nag mu taxaw loo ko ne ko xaar ma nii sumay biit noonu mu dem fële ci jaaykati jëndkati jaam ya mu ne ko gis nga ponk la mais taxaw mu ne ko waaw mu ne ko ma koy jaay sama jaam la ñuy waxante ba juboo ca waaja loo ci man nangam cent cinquante mille waaja yëkkati jox ko mu ne ko demal jël na boo koy jëlee dana wax ne gor la duuma jaam ba mu ñëwee rek gaaj waa ji xeew rek commencé kii mu ne ko man may gor foo jëm ku ma jaay nga ne mu ne ko man sa sang bi waxoon na ma ko waaw dañ ko nettalee yonantu bi yonantu bi ree ci lool kon ku reelu woon la addaxaka reeloo da Moustapha kuñtaanaka am yoonu ku ñu xoolu ko dafi nan waxtu wañ koy rob is attat fu ba ko dikkalee malaaka yu malaakaam yi kuramaaw ñu tedd ña malaaka yi bi ñu ko dikkalee rek mu kii li ko waraloon mooy biñ ko yonoon biñ ko suulee bees rek ah, malaaka yi laaj dañoo ñëw hmm. nakir ak munkir commencé ñëw di ko commencé mu ne yéen dem dayoo te yàkkamti gan gu ñëw summeegut ay dàllam sax ngeen ne përëx përëx yi def ni man dootuma demati te fekk dànk ndeke yonent bi mi ngi koy dégg ci buntu pax mi yonent bi ne yàlla na yàlla yërëm nooy maan moom du dund na di ñu reeloo génn àdduna di ñu reeloo ku reelu woon la keroog loolu laa doon nettali ci dajëf ciwu càmpa wa azala dañal na al afsana njàqare bil masi ca kaf ga xam ne walis ko kaf googu moo ko sawere gaaya dem ko mi rabbi ci warom sara wo xéewal dimbale na ko rek amatu benn problème nag gaa yëpp daw ku reelu xoon la te daan def day saanam bu bëccëg jotee rek mu topp marché yi fu mu fekk yàpp wu duuf rek mu ne lebal ma ba ngoon bu ngoonee nga fekk ma kër yonantu bi bu mu fekk banaan ak pop leb bu ngoonee mu ne fekk leen ma kër yonantu bi mu xëy ñëw jural ko yonantu bi yonantu bi ne togg leen def leen ñëpp lekk bu ngoonee rek gaa yi ñëw ne ko ah sëñ bi man de yaa ma joxoon heure bi kat sama yàpp yi laay fayee kii ne sama nangam. mu ne yéen tu fayal yaa ko lekkoon. man damaa gis ne li baax na ci yow rek ma jëndal la ko. <laughs> kon moom mbir bi mu doon reeloo yonent bi koo toppoon parce que si ngay fanaan waaw bunt boobu jeex na loo teg hmm? Hmm? amoon na tamit keneen koo xam ne daana ko reeloo ah, suma abdul ilaahi toppa abdullahi yu doxañ ko daan wooye xamaar mu doxikul Moustapha daan reeloo yonantu bi de kon neex ma baax na sanaawu tagg ga Abdoulaye tamit ku daan reeloo yonantu bi la kon ñaar ñaar ñu ko daan reeloo la xam mooy Nuhaymaan ak Abdoulaye hmm, mu ngoog hmm. commencé di la limal Muhammad matériel u këram ci wàllu ay naaru góor ci wàllu ay baxla ci wàllu ay mbaam ci wàllu tamit ay xayma ak ay bergenn ak yeneen yi nga xam ne aju na ci ay bëy li ko ci yàlla dénkoon ak ay xar waaye moom nag rek la xamutoon ci dundam ba ci ganaar sax amoon na ko yooyu yëpp maam xalifa dana la ko limal benn par benn tey nag mi ngi njëkk a yëkkee yow ci bunta fas ya fasam ya juróom-ñaari fas ñoo ci gën a wér xam ne boroom xam-xam yëpp d'accord na juróom-ñaari fas yi yonantoo ko moomoon xam na na yeneen ñu ca wax waaye yooyu dafa am xuutee waaye daal di gën a wér xayluwoo fasam ya sakk bun sakk bu la dafa gaawoon a gaaw ba mel ni ndox moo sotti neex nguur sabaxatun ak sabxa ca fas ya la mooy lu mel ni luy feey ci gaawaay wa lisaasun lisaas dafa talum zaribun zarib ca la wardun wardu ca la kulluha yëpp mu taqaaw yu pire lañ wa laxiifun laxiif ca fas ya la laxiifun laxiif min ha bokk na ca wa mur tajitun ca la lii yi ma limal la sabatun juróom ñaar lañ waa fa xat dëppoona bi yaa ci ñoom xodamaaw ngi jiituñu sarjuhoo tegam nga lii fu xobi tàndarma la daan jël laata kabbara di tëg rëy di nekk ci yonantu bi sënu taaha mbiram yonantu bi tawaadu on mooy wàcce boppoon xinaaw ak lunku rek amoon na ca fas ya yi moom yëpp dëppoo nañ ci waaye dafa am yoo xam werante yi may lim ci moo ma sijlu sajluñ mu laawixun su ma baxrun waaye bi ixtilaafin ci wutee de atat dikkee ne bii ci xolomaa borom xam-xam yi su ma xeqaalin borom jatanka ba su limmatin su ma sarxaanun najibun yaax buubuhu ak saalu naaru góoram wa addaaw bay xilwahaa kon yëpp ca fas ya dafa am werante su ma yaax suubun topp yaax suub su ma murtajilun su ma tamandubun wa huwa moom sama foofale waraaw moo nekk ca gannaaw su ma tirfun mirwaaxuhu cen cal naaru goro mirwaax daf mel ni waat latar bi upp kulluhaa si ku mu ci yi eh, min na bi tukkikoo na ci fas yonantu ba waaye fii xaa nekk na ca imtiraaw ak werante mi ngi tudd baax la ya kam bi xaalin bëri nay baax la loo ñeel na ko kiraamun yu tedd tuux di xaa dana xaddiyal ko muloo ko buur ya ilay jëm ci moom ak umaraaw ak ak ya buur yi ak presse yi ñoo ko daan may baxla yi comme ni ko buuru mu xaw bi ma yewoon ko nekkoon fi sibt xat sammat yëkkatiku na faw xas saafinaati ci kaw naaru góor ña ah, masaaki yu sell ya dul dul bu mm-hmm. ci gën a siiw sumal baxla tu topp amoon na baxla sëx baaw bu xëcc mm-hmm. kasaa nag noonu fiddatun am na bu tudd fidda wa aylatun aydan ba tey mm-hmm. min bi xaalid na bi mi ngi tukkee ko ci baxlaa yonantu bi wal bay daaw ak bay daaw yonantu amoon na ay mbaam daana leen yónnee ca saxaaba ya kon ñi tubaab yi commencé di yar ay berceau léeg-léeg ñu dem di leen yónni ci kii yonantoo ko fi njëkkee yonantu bi yaroon na ay on ay mbaam yoo xam ne day wax demal xool ma Aboubacar mu ñëw la xool ma Omar demal ne ko nangam ak nangam bu ñëw dañ xam ñoom la mu wax bon ufayrun ufayru yaafuur ak yaafuur xëy la am nañu wax na ne ximaaraani njaari mbamba dégg nga yor waa def na solan tara tara dafa dafa dëpp asmaawu tur ya ñu ne menn mbaam la mu xam ñaari tur ñeen nañu ne benn bu ne mbaamu boppam la wa ximaarun am na mbaam axda waxat yàlla na ko saxdu li taaxaat ñeel yonantu bi maa xadda saa lu dul lii daal xawaaloo waxam ne doxafa yu loppañ la lii daal moo gën a wér xofay roog yàqu fooru la xamoon ak mbaam moo xam ne saxdu moo ko ko xadd yàlloon mi ngi tudd nag gëléemam ya wan ni yàqu na xam na gëléem na jaay yu tedd laatu baaraat dee fut garlanteeg ñoom waxii ñoom ab baawu su mata jataawu moom la waroon ba muy dem di gàddaay wa du wa zalulun salul moo buñ tàggat yu doxa daanañ ko xëy min salbi amrin mi ngi ko jëlee ci rek a amar buur ba wa indahoo nekk na fa moom xaswaaw mooy ki mën a dagg distance bu gudd wala woo ñeel na ko daamun ñeen fukk ak juróom li xaatan ci gëlëm yàq waxiya moom nag a def na sàmm leen filxaa bi ca gott ba fiyaa ci ñoom wa fiyaa nekk na ci riaxawu caawa ga dañ leen daan sàmm umu ay man ma leen daan sàmm tox la bu daana raq xirbataani ñaari héngo min xaa ca ñoom libaanan ci soow kullu lay doon bépp guddi nax maawu ak xiwu lay doon ca soow ma di ko xew lil Moustapha ñeel kuñ ki sallallahu alayhi wa sallam wala day nekk na fa moom kafun téeméer minasa yi ci gàtt parce que kaaf ñaar fukk la faa juróom-ñett fukk toura def na sàmm leen ayu fadlin mu ci neen xawrafu làq na ko tilka saaw yooyu la gàtt yonentoo moom doy na tiranga wala woo ñeel na ko arnusu ay bëy dawaa jinu yoo xam ne dañoo gudd ay béjjën situn juróom benn lañ xaysatun cara xawsatun cara kasaa naka noonu xamraaw wakkaana nekkoon laxa ñeel leen umu ayman umu ayman ngay wax ne wakkaana nekkoon turxaa di sàmm laxa ñeel leen umu ayman umu taaha mi yaay yonent bi alkarimatu mooy ku tedd ak alxaraaw ku siiw moom la daan wax ne umu ayman ummi baax da kon dafa laa tuddal gàtt yi gën a siiw ci ñim daan naan seew ma waaye bu fi neexoon téeméeri gàtt yi benn bu ne turam fi lañuy fanaan lay sa yul faa de di fekkee albay xóoru nag yi fi milki taaha yonent bi amutoon nag ñu ne jamono jooju nag amutoon foofa ñenn ngeen nag dafa bëri ay xàq ñaareel dafa mën a yàq xal li jàmbur euh, moo waral sax ñaareel ko gis mu xam nag pour mu dem ba deexaale ko néew na ci lool xanaa ña ca teel xàq ya rek fii sayin ci lu wér wala xawaaxu làqut ko ixtinaawu koom looga wala woo ñeeloon na ko diikoon ganaar abidu bu weex xëy na yaati waxtu way dikk waxtu fardin waxtu julli yekkoon day nekk mu minu ca moom ni daawu sab ga waxtu julli jotee rek rawatina fajar gi moom moom moom ma daan sab wala woo ñeel na ko fil masuuri ca luñ solo la ngànnaayam lay commencé di wax masuuru masuuru sayfin luñ dégg nga euh, masuurun masuur turu jaasi la sayfun jaasi la miqdamun daggaakoon la woon su ma xat boo topp amoon na jaas bi faraaw bay daggaakoon amoon na bu ñaan tuddee miqsam am bu ñaan buddi kaa ngi bopp ya battaarun ak battaar mooy firi daggaakoon bi xatfun mooy firi dee rasoobun mooy firi nuuraakoon bi day dugg ca yàpp xéeféer ya xat bi bu xoo ak ba mbal laaw bay aji melxati jaasiyam ja mm-hmm. su faqaarin ci jaasiya la mm-hmm. samsaamatu ci jaasiya la su ma dirsu ci jaasiya la mm-hmm. kasoo kasooxun kaso ci jaasiya la su nuuni ci jaasiya la kullan képp ci jaas yi mi daaw woyaa ko loxo soo ko teg mu mu def ko ñaari xaaj mi daaw wali samsaamata ñel na samsaama xol yun takkaay jamilun bu rafet jox la defeef na fii ñoom fiddatu bay daaw bay aji weex. yëpp ay ngànnaayam la woon. mel ni kon mën foofu. <laughs> mu amoon na ay mbubbi koŋ yum mu daan sol buy xeex yi wa duroon amoon nay mbubbi koŋ. lil badri ñeel na weer wi. sabxun juróom-ñaar la xasaanun yu rafet. wa hiya moom saatul fuduli am na yoo xam ne dañoo gudd borom yi mbicc yu gudd wal batraaw am na yu gàtt. benn ba fiddatun la tudd. xarnaqun saxdiyatun boo xam ne ko jóg saxdiya fa la ko jëlee ci banni saxd zaatul xawaas yi borom it mbi wàcc mbicciye ak wisaawo dàkkam ba mooy pentiram kiyam ba bouton xam ya xas naaw lu rafet la amoon na ay xala zikru xisiyihi wa kazalika nag al aqwaasu xalaam ya xam sun juróom la si daat am bu ñu tudde si daat ba katoomun safraaw dafa nekkoon bu zone wa zawra wa zawra wu cala wa xas yu na am na xala min sawxatin mi ngi bàyyi ko ci banta bi xiir dinañ ko mën a déggee ci suñ garab yi yé moom fintaan ñaar lañu xoon yu sama daañ tuddee tu sama dem tuddee ne bay daaw bay daaw waraaw xaaw wala wa ñeeloon na ko nablun dégg nga euh, fett joxbatun amoon na tungaar mooy fi ñuy dugal fett yi parce que saa naka noonu mintaqatun amoon na ceinture fii xa nekk na ci xalqatun bu too xas naaw bu rafet watu sama daa nañ tuddee jaxbatu saaxa surtout ŋaaru yonantu ba kaafu lañ ko daan tuddee. boo bi sil jame daanañ ko wax tamit sil ci biiram xat xakkaani tudd ko an baawu fi dikri ashiyaa mutafarriqa min alaati xurubihi mm-hmm. lii mooy buntab jàngatal ay mbir mm-hmm. di ay bagage yoo xam ne yonent bi amoon na ko mm-hmm. lu mel ni mbaxana ak lépp lu aju ci wàllu xare rek mm. la lay bëgg a jàngal fii nag mm. wala ñaaloon na ko tursun pakk mm. boo xam ne dañ ko daan tuddee lu timsaali naa dafa am dessin am na beneen bu ñu daan tuddee saluqun maa fatqin fataqin wa kullu za képp ci yi rek asmaawu ay tur la mën na daal ay tur yoo xam ne ay xeej ay ay xeej fett la waaye bu ci soxla rek day wax ne andil ma bi tudd tur wa waaye du la yónni mukk nga ñëw naan bu gudd baam bu gàtt baam yooyu mm, dañ cee desin woon moom tim suu timsaal dañ cee desin woon am kuy xar am xar lañ ci netaaloon desin ko ci mm-hmm. waaye nag bañ ko indilee yonantu bi mm-hmm. da teg loxoom bu tedd ba rek mm-hmm. dessin ba dem moo tax liñ ci jàngee mooy sib nañu dessin mala ci yére yi ñuy sol wala ci suñuy bagage yi donte lu amul takkindeer la soo amee takkindeer nag li koy gaa yi defee seen buntu place yooyu noonu solal nit ki ba nga xam ne boo ñëwee bi ko bëgg a nuyu sax foog nit la ko mu dafa xaraam ku koy def yonantu nee ne ba yow ma xiyamee dañ la togg nga wal ci roof doo ko man ñu boole la ak moom dugal safara léegi nag mu ngi mel ni lu dagan la palaas yoo dem fekk ko fa kon yooyu ci bagage mi la bokkoon dégg zalook tamit noonu la mel mm. dafa nekkoon ngànnaayam la kon mm. fatak tamit noonu mm. sallallahu alayhi wa eh, amoon na benn xirba eh, bu ñu naan tuddee bay baax ak xirbatu boo xam ne dafa tuuti mm-hmm. moom lay wax ne wa amoon na xiraab mu zarabaatun yoo xam ne yuñ guddal la yu gudd mm-hmm. fa suxraa amoon na yu ndaw mm-hmm. benn ba an sa tudda tuddoon su ma napaatun topp kii nabal fet loo xam ne bay daaw dafa defoon bu weex mm. am na buñ daan tuddee namirun mm. suma mahru mm. du ma tàppee fi ne ko ilayha mu jëm ci ñoom kulluhaa si képp ci yi rek taxaafuha daana ragale ko ko ak daaw noon yi wal musanna amoon na bu ñu daan leem mi na rimaa yi ci fett yi li taaxa musanna dañ ko daan dañ ko daan leem ni comme ni ngay leemee sa yére bi xam nga weñ na ku koy leem xéem na mhm. kon ndeke yonantu bi liñ mayoon daawuda ci weñ yëpp yonantu may nañ ko lu ko ëpp xam nga daawuda dañ ko tàggataloon weñ mu def ci lu ne waaye yonantu bi tamit tàggatal nañ ko weñ mhm. mu ñëw jàllar bi ko tamit leem ko comme ni ñu leemee yére moo tax moom boobu dañ ko daan tuddee mu sànnaa mhm. mu ne rek maa ngi ci guntux yi wala hoo ñeel na ko insinaaw ak lemu min lii nil xadiidi ci nooy ak weñ yàlla mayoon na ko weñ gu dëgër dëgër mu ko daan noo mu ko daan leem loolu def na ko ba tàyyi hmm. mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. na ko meex jënun hmm. ba tey bagaasi euh, xare la ka xidri ziraain dafa mel ni ki xadri ziraain dafa mel ni kem xasa bu guddutoon nag moom nag dañ ko daan xooyee ziqnun lañ ko daan wax ziqnu la tuddoon meex jën ba la woo ñeel na ko xisi yu yàq boo xam ne fi daawu njot la daanu yore benn xeet wa qadibun amoon na maanaam gattax te mu doon léegi doq lay niru mm-hmm. euh, fii raaxatay ci ñaari tinq mi la ko daan yore mm-hmm. kasiran lu bëri te daawala tu yotlante ko mi bax de gannaaw xulafaaw xulafaaw yi bi ñu génnee àdduna abubakar yore ko mm-hmm. ñu koy doon wante euh, wa asmo turu maanaam xadib ba mooy mamsuuq dañ ko daan waxee dégg nga de euh, wa wa wa wa wa wa muxasaratun ba tey tamit wattu doxa daanañ ko waxee mu xasara mm. ñaari tur la am mm. dégg nga de mm. eh, wa mu xasaratun daanañ ko xooyee wala ne nga ne eh, wattu doxa daana xooyee yoxur joonin ci dégg nga de wa ismuhu turu boobu ma waxoon la mamsuux la mm-hmm. wattu doxa ah danañ ko waxee mu xassara mm-hmm. bi xurjoonin ci xurjoon mm-hmm. dëgg tàndarma xataa kan ko dama ñu jiitu wala wa na ko miix far miix far boo doon képpi mbaxana muñ daan sol yu weñ yooyu yu sama danañ ko tuddee sabuuxan summa mu wassahu aydan waqaawu aji fegal na ko aydan ba tey loo teg Eh, waaw lii awaan yi yëpp ay bagaas la ay ndab yonent bi amoon na ay ndab ndabal tusingal ndab lu mu daan kii yëpp ndabal sangu ndabal jàpp ku par ku organisé woon la ah benn ba ba daanañ ko tuddee muxiis mooy firi aji xettali xam naa ko xiif bu ñëwee xettali la rayaan benn ba rayaan mooy firi aji màndal aaniyatu ndab la woon muktasal am na bu ñaan se mooy sangokaay kulluhaa fii képp ci ndab yi safraaw dafa nekkoon boo xam ne hmm. përëm la woon hmm. mooy dafa soxna përëm la hmm. su ma woon amoon na ndab mel na su jaaju ci weer wa bu ñaareel ba xasabun bant la wala ax jaaru dojee tamit min ha tukkee na ci ginnaawu ndab maanaam kon yonentu amoon na ndabal përëm amoon na ndabal doj amoon na ndabal weer midhanun amoon na ndabal tusngaluku kaay suma meex dabu meex meex dab amoon na ndabal maanaam euh, fu waaye boobu nag dabbuhu ŋànkee nañ ko mm-hmm. bi lujjay ni ci xaalis mm-hmm. wa ax kama xereñe na mm-hmm. wala wa ux kima xereñeef na xukama way xereñe na liggéey bu rafet lañ ko def defoon su ma mustu topp amoon na peñe kasaa naka noonu siwaabun amoon na soccu kasaa naka noonu mu ko xalatun amoon na ndabal tusngalukaay mu doxanun ba mooy ndabal diw bu njëkk ma la waxoon mu doxanun mooy diw mbir atun amoon na seetu akaret na ko andaaw solo yi wala ñeeloon na ko rakk watun te doxaa dañ ko doon xaawee bi saadira mbuus ga doon tuddoon kaga naka noonu daal dañ ko xooyee rabaxatu mooy lu wa neex ma baax na sa xaawu mbuus ga sama miqraadu topp maanaam sisoom yaa amoon ay siso wa saaxun amoon na saa yu nga nattee wa muddun ak but xasangatun amoon na bagaan neex ma baax na xaatiir asiyaa wa sarirun amoon na lal lal buñ daan uh, kii hmm. xatiifatun amoon na mbàjji kiswa dégg nga mm. wa firaasun amoon na lalu mbëstal mm. sarir mooy lal bu xam ay tànk mm. firaas mooy lal bu ñu dëpp nii rek waaye ku mbuus yi nga udd man boo xam ne der la fan wa ismul xisaati turu bagaan ba xaraaw lañ ko daan xooyee dalan la tuddoon su ma xaddawoon amoon na ndab yu daan daan nañ ko waxee bi farq teqale rek li xas lim ngir raxas xad ataa dikk na innaaw ndab la fii fi sayi ci sayi buxaari indi na ndab la ah, dégg nga de neex ma baax na innaaw ndab la Euh, wa wa jibaabun amoon nay manto ji mu ñett la hmm. waaye da xadoof na ko li xar bi ngir xare hmm. xëy na tas tab waxtu way tar xay jaawu mbambare ma fi waqaa ci xare hmm. wala woo ñeeloon na ko xaatamun jaaro tara da nga gis alfasa njañ la minu ci moom fu ma fasul xaqiqi topp njamal xaqiqa la woo moom sifaaw saafara la kon dafa amoon jaaro boo xam ne dafa am njëriñ xaqiqa ku feebar bu ko dugalee ci ndox jox la nga naan ko rek nga nga wér te mu ne la sallallahu alayhi wa sallam mu nga kootak taaratan lil yamin taaratan léeg-léeg hmm. lil yamin ni day nekk ci ndeyjoor hmm. oxraa beneen ba lu isra mu nekk ci càmmooñ maanaam eh, jaaroom ba takk daan takk ci loxoom ndeyjoor léegi mu takk ci loxoom càmmooñ loolu la bëgg a wax hmm. waaye nag fat suhoo njañ la daaxilun dafa nekk ca biir dafa wuteeg ñun xam nga ñun ku ci xam jaaro da ngay dal njañ la mu nekk ca kaw nga koy tiit waaye moom njañ la ci biir la ko daan ngir bañ caa bu takkaan jaaro njañ la ci suuf lay nekk dégg nga de ah, dégg nga wasaaka loolu sawaabu ak xemala la wasaaka loolu sawaabu ak mandu la ngir ba a tooñ kenn suma xurfaani amoon na ñaari amoon na ñaari sang dégg de eh, loo teg eh, eh, yoo xam ne yu yu yu yu yu gàtt la parce que dàlloo na ko kaana mm-hmm. dàlloo min hadaya najaas yu mi ngi bokk ci haddi najaas yu moo ko mayoon ñeex mm. baax na si daaw dàll ya mm. dégg de wala day nekk na fa moom xamaamatun mm. kaala kaana nekkoon na yurqa daan ko yoor tarfaha pet la daan na yoor tarfaha petu kaala ga ñeex ma baax na zaakal irqaaw googale yoor dégg nga de amoon na kaala daan ko kii waaw léeg-léeg maanaam mu ko daan yoor wala woo ñeel na ko min xalaani sa ci ay mbaxana zaatu asaan yu ami ay nopp si xaar am na yu gudd wa neexam baax na asmaawu tur ya euh, fa mbaxanaam ya salaasu ñetti mbaxana la fa maanaam mbaxana ya fa ngay wax na euh, xalaani sul Mustafa mbaxanaa yonantu ba fa salaasu ñett la wa hiya ñoom siqaarun am na yu ndaw wa kulluha yëpp na xas naa dañoo rafetoon wa qad yaxtama kaalawu na fawqaha ca kaw mbaxana ya dafa daan kaalaw ba pare dafa daan mbax sol mbaxana pare kaalawu ca kaw mbaxana ma wa bihaa ci loolu nag xat tumaasu lay jàqeef jamaatu mbooloo ma xunafaa ñooy jullit mandarga mu nañu xamee jullit dafay kaalawu wala woon ñeel ko raayatun drapeau tu sama dañ ko daan tuddee xoqaab wa liwaawul xamdi am na bu ñu tuddee liwaawul xamdi moom lay kii xakk maa xakkaawu niruwut ko li waaw drapeau wala wa ñeel na ko raayatul ah, bayaat bi drapeau bu weex kama xan nuqilat comme ni nga xam toxleef naa na ci moom raayatul drapeau safraa boo xam ne dafa dafa mboq bu soon su ma naxal lu topp dàll day fa moom am na ci boo xam ne safran dafa soonoon yoonu tax mën dàll yu soon ba fustaat amoon na bergen ber mooy li ñuy wax kii fustaat mooy xayma xayma yooyu yooyu nag euh, wakkaana nekkoon na minu ci moom samaawu turwa bil kinni kinni lañ ko daan tuddee kinni mooy lu nugg rek xam ne boo ci duggee hmm. dana la fegal lu bëri kinni moom lañ ko daan tuddee fustat na ko burdatut mbubb yamaaniyatun bay ko jóg yaman tul ba su daana sol def na sol ko yow ma la xel day nii bisam ñaari xel yi hmm. su ma di daaw amoon na làmbaay hmm. ruba ma jaa amaan na ba dikkee nag albadro weer wi li la xel di jëm ci xeet mooy tabaski wala korite aydan ba tey waa waxal yi nekk ci moom amaamatun kaala sawdaaw gu ñuul nee na daana ñëw na xew bu ñëwaan sol kaala gu ñuul kaala ko wala day nekk na fa moom biidun gu weex wa suudun gu ñuul wa suufan ak gu soon ku bëri woon kaala la kon amoon na ñetti kaala waaye nag wa kasira maa talbasu li gën a maa talabasa li gën a bëri ci loo xam ne sol na ko bay daaw mooy bu weex ba wa kasira maa tulbasu li gën a bëri ci loo xam ne def na sol ko bay daaw mooy bu weex ba bu weex ba la gën di sol wa chiaarun am na njéllaay am na ah, ah. murid daal am na làmbaay xat kaana nekkoon axdara nekkoon bu verte hmm, ay doon ba tey hmm. daa walatu jot lante na ko hmm. asaabu saabaan xulafaaw ñu ko wuutu ñoo ko daan ba mu génnee àdduna maanaam ñu ñu donnante ko rek la bëgg a wax wa chiaarun am na am na am na làmbaay maxa disaar yi ànd ak njéllaay kataa naka noonu mil xafatun mooy mil xafa mooy yére yooyu nga xam ne dañ koy eh, kii gàccoon mais ni Arabie Saoudi gars yi dem màkk di ko sot nga ko nga ciy dugg nii rek moo am ñaari ci moom la ñu milxaf wal xamiisu am na mbubu moom waraaw ma ngi ca gannaaw. Mm-hmm. wa saraawilu nag tar pantalon ga wa kaan nekkoon na saraawilu pantalon si àdda ci nekk ixtilaafun wuute fi libaasin ca sol ga mm-hmm. waaye wa saxawir na xam ne ci moom siraawu jëtt ga mm-hmm. kon yonent bi xamoon na pantalon waaye werante am na ci ndax mos na koo sol wala mosut koo sol kooku nag xadis si coow nañ ci waaye nag li gën a wér jënd gi moom xam na dégg nga de Abi Hurayra rek ne na man mii maa ànd ak yonent bi ci marché mu jënd benn pantalon foofa ñu ko génnee ñeenti dinaar ñeenti dërëm kon ñeenti dërëm yoon waaw maa ko fekkee de maa ngi kon na loolu wér na mu ngoog wala ko ah, ñal na ko min diilun sarbet li waccin ngir xar-xaramam ba bu doon léegi ba musuwaar waa xal ndax nekkoon li badri ñal weer wi min xabli saaka njëkk loolu jalaaw ak fomp waaw ba mu xamagutoon sarbe ndax daana fomp ñaqam weeg yooyu mm. xam na werante te dana mun na teg nga zikru ma taraka minal buyuti yow ma wafaatihi li mu bàyyi ci ay néeg kër doon léegi ñu ne kër yi mu bàyyi titre foncier yi ginnaaw bi mu génnee àdduna moom nag benn titre foncier la bàyyi rek te mooy jàkka ja jumaa ja foofu tamit la dëkkoon amutoon kër jëloon néegi soxna nga tafal ci jàkk ji dëkk fa kon imaam bu dëkk ci jàkk ndeke lu fi yàgg la léegi nag defoon nañ fa juróom-ñeenti néeg moom la imaam Xalifa wax si nii ngay wax ne waqat xudda limeef na li taaha ñeel sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tisaatu abiyaatin juróom-ñeenti néeg sawat saxoon na aluhoo ñu yam ña bihaa ca néeg surafa ñu tedd ña waa këram ñu tedd yi dafa lañ dëkkoon baxduhaa lenn ci néeg ya tayyanu tayyanu raaxee nañ ko bittiini ci ban wal baxdu lenn la xale yi nekk na ca xijaaratu doj sammaa ubay aji tëx daj lañ ko tabaxee cay kaamatu sax si taxawaayam nit xadruhaa mooy mooy mooy dayoo mooy mooy kem hmm. nit ba firtifaa yi ñu ci yëkkatiku maanaam daal bu nit taxawee daal day laal terrasse ba kon amutoon hauteur bu gudd ba ëpp hmm. sax foxaa téeg ma bil jariidi xobi tàndarama lañ ca lal hmm. mu ràbbaloo ba bu tawee du senn neex ma baax nag ginnaaw tabax ba kuule wuñ ko woon de lañ ko kuulee daal mooy ay ay ay xobi tàndarma ah, mu guddee ni taxawaayam nit dégg de lam yetul guddul samkohaa téeg ma guddul de irtifa am ci yëkkatiku waaye walakin li fi nekk duuna marma uluwiha yées na sànneeku waayu kawem nga xadraawu asamaan guddul de ci saahir boo yëkkatee sa loxo sax laal ko waaye dara jaam de fam xegg loxo mënu faa xegg ndax moo sut asamaan jabrailu jibril luxa la ca luxa xam xam na fukki luxa ak ñaar al aminu ku ñu xóolu ko yaati daana dikke ilayha jëm ca néeg yooya wa biha ca néeg yooya la daan wàcce aayo aaya te ji ngay wax ne wa bihaa ci néeg yooyu jaala dikkee daan wàcc aayu ay alquraan wal anbaawu xadiis yi fa ko daan fekk ci néeg ya xujuraatum ay saal lañ zamma ma na ilaahu yàlla mu naa di ku fay xoox xawlaha fa wëram fa hiwa Moustapha kuñ tànn ki wa zumma ŋàññeef na ni daawu xoote ba ñaari yëf la xoo nañ kuy xoo yonantu bi waaye ŋàññi nañ tamit kuy xoo yonantu bi ca pegg saal yi yàlla wax na leen ko sax mm-hmm. euh, mu ngoog dégg nga laa tajcalu duaa rasuli ka duaai ka duaai ka duaai baxdukum baxdan xujuraatun ay sàll lañ xawat làq nañ jamii al maalim mboolem kaw yi fa hiya ñoom nag turbatun suuf la wa sawaaw tey saxuwaay lil badri ñaari weer fa lañ mujj denc ci yonent bi ci saal sayyidatuna Aïcha fa la dëkkoon ba mu génne àdduna tin fa lañ ko kii yàlla nag di ŋàññ ñi fay xoo yonent bi lool ne ladina yunaadunaka min waari xijraat aksaruhum laa yaqilun ñi lay xoo foofu daal di tudd sa tur xamuñ xel ay baa ngi wàcc nag ci benn délégation bu bokk ci bani tamim nga xam ne aqra ibnu xaabis ca la bokkoon ak maanaam zabru zabru xaan ibnu saydin ak omar ibnu atham atham dañu fa ñëwoon di ana muhammad muhammad di wax ma ni kuy wax a sa morom yàlla wàcc yaay ji ne ah bu leen di xoo bi comme ni ngeen di xooxante de ñu leen di yëkkatee di seen kàddu ci waru kër yonent bi siir na mujj nañ ñoom néeg ya fil masir ci jàkka ja bokk ca jàkka ja xaraam ba dem waxoon jëmeen boole seen baax da la maa ba nga xam ne desut fi ci néeg ya nisaawu jigéen bi demee ba soxna yëpp jeexee nag te gis nga may mënatu mu mujj ca soxna ya ca lañu ko mujj nag màbbu ci ndigalal walid ibnu abdul malik mu jël lettre ba joxoon ko omar ibnu abdul xasis mi ñaan dàkkante lay xaamisul xulafa ba décret bi gi ñëwee nag ñu ne dañ ko yokk jàkk ji keroog Madina yëpp dañoo daan di jooy ba mel ni keroog la fi yonent bi jugee ko moo tax maam xalifa ne xiina waafa waxtu xiina waafa waxtu wa dikki alkitaabu téere ba muy lettre bil am ci ndigal fiihaa ca mabbu néeg ya xalaba not na naasu nit ña inda saaka foofale bu kaawu jooy ñu jooy rek hadamat ha mabbu na ko banu umayata parce que abdul malik banu umayata la bokk ci mbuur yooyu ba naasu nit na leen buraxaawu tatak njàqare euh, min min amriha ca mbir ma am ñëwee daal ñëpp yi di jooy rek hmm. tatak lor mooy buraxaa léegi nag mi ngi bëgg a wax bindab yonantu bi ak melow melow melow melawam wax mat ak melawam wax kaana nekkoon na faxaman di sang mu faxaman di ku ñu sangal wa mahiban di ku ñu wekk li mu xayaaw ñeel na xar-xaram ba laaw mel xate fi du jaa ko kukku hmm. loolu bu daan ndox ci lëndam danga gis xar-xaram bay nes nes yi ba mel ne làmp kii hmm. wa tara da nga gis alwaje cëlmaay la mis la talati shamsin mu mel ni fenku jant hmm. waa àll yi nekk na ca kawam baawu taar minal jamaali ci taar taar ci kaw taar la huwa moom wajhun cëlmaay la mu dawarun bu ron xaw a naroon yi kilmaay li lay sa fii nekkut ci loo teg kal kal kal samun nuux nuux nuuxuwut nii dem ay ay kii waaye nag fii xir nii ne aji nekk la ca sukk bakkan fi nekk la ca bakkan ba mel ni coom xanaaw ak yëkkatiku bakkanam dafa xaw a yëkkatiku nii comme bakkan kii fu jën yi niin jëb yi niin boroom jëla dafa yàlla joxoon na ko jë saltin bu rattax a asaj bu ndettu wa ak naa ku yëkkatiku woon bakkan la ab la jul xaaji bay ni ku doggante la ci ñaari hiin laa qaranaaw dug lu lëkkalikoo hiina mi nukkutoon lu lëkkaloon yi dégg nga de sallallahu alayhi wa sallam hmm, moom lay waaj yi waykat ba ne bi ma xoolee jëmee ci leeram yi rek dafa jolli ma mujji jël sama ténqali teg ko ci sama bët yi ndax mënu ma ko xool ngir ragal sama bët yi dem musu ma gis ku mel ni sayduna muhammad sallallahu alayhi wa eh, ahdabu ku saq ay héen la ak xalu ko ko tusngeluhu la fu ko bindaale asilun ku rattax ku rattax maanaam lex la wa tarnu dana jax min mu xayaaw ca xarxaramam ba lu cay jax muqalatu nagu bët naj laa bay aji yaatu bëtam ba nagu bët bi dafa rëy xarqul wa ci ku ñaqahu la ci xarxaram min hut kii ko ne si ñaq wa ka duri fa mel ni ki wurus tax juuxu da njort ko xalaa ko ci ci cën maayam la maawu muy ndox mi ne tibrik bàyyi ko ci wurus bu yonantu bi ñaqaan ba ñaq wi sotteeku dangay ngay foog ne ndoxam wurus fuñ ko sotti la mu di nes na si nga de ah dégg nga ñaq la tayibun bu ajitee xarfoo xetam nga lay sa yax kii ci niruhut ko minal miski ci miski nafatun bonni wa sosaawu ak cuuraay wala udu kalañ bu la gën a kii xen maanaam métutu moo tax sax ki ko doon boot xalimatu naka daan art di ko jaay léeg-léeg ñu ne ko ah yow bi nga jaay démb gën a neex mu ne yëpp benn la ñàpp yonent bi rek laay jaayee. Mm-hmm. Hmm, moo tax Ibnu Farid di wax ne laysa takaxulu fi aynayni kal koxli tusngelu gi nga xam ne dafa bind ko bind waxaale mu teg tusngel goo xam ne dañ koy dafa la dab de mm-hmm. jiitu woon loo sam wa ka lu jéeni fa mel ni ci xaalis yaa ngi turu day xool nag lax san ci gende ko bu lay xool dalay yonantu du la fixé day du lay kii nii rek mm-hmm. xaafidu tarfi di aji wàcc ci bët kat buy wàccee bëtam yi bëtam yi du ko dal ko kii da da koy xool ci suuf naanam mm-hmm. sa nuba mbiram daal ex daaw mooy gëmmal waaw mm-hmm. ah, waaw dégg nga mm-hmm. loos wa nag ndeysaan dafa rafetoon ba mel ni wurus suñ ko taggal la waaye sax euh, wurus wurus a mel ni moom waaye wurus moom melul ni wurus nga gis ci bu daan xool day xool rek xaw xawlaa catu bët nekk kuy wàccee bëtam yi ci suuf mbiram daal mooy gëmmal waa si lu xos ni ku takkoo njàqare la fu mu toll daa imul fikri ku dappetoo xelaat la yaaruhu dana gaar ko laay ci yàlla xaw foo ragal ko rajaawu yaakaar ko moom la boole woon ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hmm, dégg nga moo tax benn waykat ne majtamaa raja wa xawful baar yi fi ahadin faraaxa riixan naar yi mu ne xamul kenn koo xam ne ragal yàlla ak yaakaar yàlla dana daje ci sa xol xet ak safara di la xeeñ mën ta xam jullit dafa war a boole ñaari maqaama yi baynal xawfi wa raja soo demee nag bay bëgg a dee tollu ci lalab sukuraat san ragal fële xam ne li ngay bëri bëri bàkkaar tey nga dajeeg borom boo xam ne moo gën a baax ñëpp ba tuddee boppam innahu huwal barru rahim